gis ngeen euh, li nga xamante ne moom mooy euh, moom mooy dex bi daf ne tek ndax Maulana Cheikh al Islam moo mel noonu moo jëmoon noonu dex bi ne tekk jamono ji alors euh, gis ngeen organisation bi tout à l'heure ki nga xamante ne moom moo di le président de la chambre de commerce voilà gaa léegi noonu moteur yi li ñuy wax tam si saaj waxoon na ma ko lii ab si kër la li ñuy riir nii sikkar la ci sikkaru Baye Niass yi waaw Cheikh Ibrahima Niass moo mel noonu Maulana Cheikh al Islam déet déet déet déet digge ñëw bàyyi ma nii rek alors jakarta yi ñoo yegg si noonu ñii dafa mel ni ñoom dañuy def démonstration de force Baye Niass a ngi noonu drapeau l'islam laa ilaaha illallaah gaal gaa ngi gaa ngi mu ngi wàcc di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc di yéeg Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass moo bindoon noonu lii dafa mel ni ñoom dañuy def démonstration de force euh, alors les petits euh, gis nga noonu waaw kii ku moom waaw nag nag nag capitaine doucement alors en direct si euh, radio télévision Alfayda Cheikh al Islam ni mu mel ci jaww ji mel ko ci jéeri gi mel ko ci tali bi noonu la mel ci dex gi Baye Niass moo bindoo noonu ni mu mel ci ci ci jéeri gi mel ko ci jaww ji noonu la mel ci dex wi Cheikh al Islam moo bindoo noonu alors euh, gis ngeen noonu Jakarta yi xal nañ yoon wi ñu jël seeni gaal def ci drapeau mu weex tàll tàll tàll tàll fi mu ne nag euh, dañuy dem daal di jëli gaal yi nga xamante ne moo yëpp nit ñu sikkar ànd ak ñun ñu jëli leen ca yoon ca yoonu Linguère al Islam El Hadj Ibrahima Niass Cheikh al Islam El xool ko xoolal Cheikh al Islam ci ci gi. xool ko xool ko xoolal Cheikh al xool ko xoolal Baye Nges xoolal Baye Nges xool ko xool ko ah waay waay yàlla mën a bind waay yàlla mën a bind waay allahu akbar xoolal Baye Nges ak ndox mi xoolal Baye Nges nga xalaat jaww ji xoolal Baye Nges nga xalaat jéeri gi xoolal Baye Nges nga xalaat yoon wi Cheikh al Islam Izwan depuis mille neuf cent soixante treize li nga xamante ne moom moo di gaal yi ñu ngi ñëw ci Medina Baye kenn damm ci kenn rëq ci gaal yëpp ñu ngi ñëw ci jàmm macha allah alors gis nga ko noonu gone gone yaa ngoog séeréer yi ñoom it kay Baye Nges moo soppi lamb yi def ko gàmm Baye Nges. moo soppi soirée yi ca def ko def ko conférence laa la laa lii lan oh c'est émouvant Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass birëb bi Baye Niass la ñu ko dippee waa kii lan la nii déet doucement li day moom bu njaaree moom mooy tuut ci digge déet déet déet eh, daaw de gaal gi daawul def nii moom ah demee wul woon nii ma ne ko lii de bu ñettee boo ma dem ci ah, ji ñu ngi Lindiane Saly du Sine Saloum mu ngi nële Saly du Sine Saloum mu ngi nële ñu ngi xaar seen participation ci grand événement yi rawatina gàmmu international bu Medina Baye muy événement bi gën a mag coupe du monde ay waay waay waay capitaine waay rassulillahi ay saalum saalum lañu xorom see lañu xam ak gerte pirog yaa ngi nelee am na lu jot ñëw mais sababul fayda sababul fayda amoon nañu fi en tout cas par bu am solo mais euh, ah yegg de waa ñeene daa mel ni bi ngi nekk gën a wóor bee Jakarta la dige fee waroon dem alors mbokk yi 1973 la pirogue njëkk a fi nga xamante ne moom moo di ci Ili Saloum diggante Girna Fayako Foundiougne ñëw pour la célébration de la naissance du prophète Mohammed paix et salut sur lui waaye woote Cheikh Ibrahima Niass bi nga xamante ne moom la waxoon ani an li Ibrahima laaxa ilaalawoo ñu ñëw daal di koy feddaliwaat ci li nga xamante ne euh, moom mooy moom mooy bés bi waaw micro sàllu baay bi daanu na <laughs> ba 2023 ñi nga xamante ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñoom i koy xàddiwuñu waaye ñu ngi wéy di abal li nga xamante ne moom di seen mbëggeel seen cofeel ci Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass alors tey boo fi ñëwee da gis ndox mi ne teg jën yi ne teg lépp ne daal di teg dañuy yaru ndax Cheikh al Islam wooteem ba ak ka mu ko wooteel di yonent yàlla Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ne terre mer ne Cheikh al Islam li nga xamante ne moom moo di air bi tamit noonu la fa nit di jógee tey boo demee fi nga xamante ne moom moo di port bu Ndakaaru yaa ngi gis ne. ay junney junney doomu aadama ñoom ñoy ñëw ci bés bu mag bilee waaye tey ñii nga xamante ne ku leen xamoon xam leen ci wàllu lutte xam leen ci wàllu lamb ñu bàyyi lépp ngir daal di ñëw xidmaal cheikh al islam ma ne ko Tamsir Sack démb lu leen bàyyi ngees defal mu ne cheikh al islam daf ñu fekkoon ñuy mbapat cheikh al islam daf ñu fekkoon ñuy organiser ay lutte traditionnelle cheikh al islam daf ñu fekkoon ñuy dem ci baar yi mu dindi loolu lépp daal di ñuy yóbbu ci li nga xamante ne moom moo di gàmm yi mu dindi loolu yëpp daal di ñuy yóbbu ci conférence yi mu dindi loolu yëpp daal di ñuy xidmaal mu dindi lépp daal di ñuy wan ne dëgg-dëgg diine mooy diine l'islam waaye kenn rek la ñu war a topp muy gën gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam tey looloo tax trois heures du matin ñu quitté fi nga xamante ne moom moo di seen i dëkkuwaay nekk ci géej gi di sonn ñenn ngi jóge ci avion yi ne ci dex gi la ñuy jaar lu ko waral xidmaal cheikh al islam ñenn ngi jógee fi nga xamante ne moom moo di ci euh, route yi ne ci dex gi la ñuy jaar lu ko waral mooy xidmaal cheikh al islam kon dëgg-dëgg xidmaal bàyyi ngees rekk moom mooy dëgg waaye dëgg-dëgg bés bi nga xamante ne moom la ñu jagleel gën gi mbindeef rek moom mooy dëgg diggante bàyyi ngees ak île du xam ngeen ne tey boo demee fayokoo di nga fa fekk ay borom xam-xam mbind mu ñuul ak mbind mi ci téere bi xam nañ ko waaye dëgg-dëgg li ñu xamutoon mooy ana kan mooy seen borom cheikh al islam loolu la leen woon cheikh al islam loolu la leen jàngal cheikh al islam la leen joxañ kon nag Maulana cheikh al islam bu wootee bu ñëw ak foo mënti jaar fayoo ko loolu mu alors mu ngi noonu léegi gaal yu gën a mag yi ñooy ñëw waa ñi ñoroon amal sikar si sal wax leen ñu sikar bu ko defee day am solo waaw waaw bii gaañ sëñ Ousmane Thior la ñu ko dippee lépp la fi seen Cheikh al Islam la borom faydu bi l'imam de la fayda Tijaaniya ndeysaan xoolal noonu ñi ngi gàddu seeni doom ñii ay ëmb ñii gàddu ay sàkk ñii gàddu li nga xamante ne moom ay karaaf ñëw ngir daal di amal li nga xamante ne yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ani an li Ibrahima ñëpp wax fi mu ne ani an li Ibrahima ku jàng dina ko wax ani an li Ibrahima ku xamul mbind mu ñuul mi dina ko wax waaye en tout ka ñëpp mokkal ko Sall Baye béyti la wala lan lool béyti la béyti la waaw góor loolu béyti la ah waaw Baye ko wax béyti la waaw maa ngi ndokkeel sama bopp ci sama weer man Ibrahima Niass waaw boobu de moom boobu de moom xam naa ko Alaaji Asan <laughs> alors les gars yi sikaraguñ de dex gi ni mu ne teg day yaru jën yi duñu yëngu day benn jën plus de plus de plus de soixante sept années ah am nañ alo euh, voilà Sall Baye mu ne lool mooy euh, mooy mooy premier groupe bi. ndeysaan seen xar kanam gi coono rek nga ciy nemmeeku waaye coono mbégte la ci ñoom ñu ngi ñuy tàllal loxo di ngi saluer mbégte rek lay firnde ndax gaal yëpp njabootu Cheikh al Islam la ñu ko tuddee ay gaal yu ngi tuddee Cheikh Mouhamadul Amin. ay gaal yu ñu tuddee Cheikh Ahmed Tidiane xoolal gaal gale sëñ Fallou Mbacke la ñu ko dippee kolere ngoog Cheikh Mohamedul Fadilu moom la ñu ko dippee loolu kolere la El Hadj Assane ndax ak Serigne Fallou Mbacke mi bëri na de tek waaw moom gaal gi moom ni mu doon def sànq dëggal gaal gi li yuuxu. dégg ko bii moom xanaa mooy xay bi bii xay xay la laagi la dam si mu ne bii xay la laagi la xoole yële suñu gannaaw xaddi wuñu ba léegi ñoom ñëpp ñu ngi noonu di yegg si waa Lindiane génn nañu ñu ngi seetaan euh, démonstration bi alors ñu ngi seetaan euh, li nga xamante ne moom moo di arrivé bi ñooñu ñooy euh, waa quartier bu Lindiane situé dans la commune de Kaolack à quelques mètres de la commune de Sibassor voilà gis nga ko noonu am na ñoo xamante ne xam naa sax dañu yewoo ci nelaw ndax waa jële moom yaramu neen la def mais démonstration bi nga xamante ne pirogue yi ñu ngi koy def euh, moom moo taaru lool waaye tamit euh, doon moment boo xamante ne dafay euh, baax nga gis ko ndax gis ko rek mbégte la climat bi climat bi may noyyi fii gëj naa ko noyyi ci Kaolack alors sikari sikari sikari sikari sikari drapeau Sénégal vert jaune étoile vert au milieu ndeysaan mu ngi noonu def euh, ci wet gi euh, photo Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass Baye Niass gal gi El Hadj la ñu ko tuddee mu ak seeni euh, matériel waaw fi mu ne de waa ji mënoon naa dem fële rek ndax gars yi ren dafa mel ni euh, en tout cas gisaguñu li nga xamante ne moom moo di euh, sikar si ndeysaan beneen combat baa ngi noonu sama gars nga dele waaw ñoom ñoo leen gën a gaal balaa neex doon dënk gaal balaa neex doon dënk ah <laughs> Sall Baye mon frère waaw lépp ñun la rek fayda la fayda la faydu bi la Cheikh al Islam bu wootee amatul nii wala nële donc tey ñun ñëpp a ko bokk loolal la kii kan la Bernadette voilà ñi ñooy journaliste Fatick yi kon fii ci Kaolack maa ngi koy ziar xam nga moom chrétien la waaye dafa dafa dafa statut keroog Cheikh al Islam ah, waa sama jigéen alors lii lan la mu ne ma Mawlaana Cheikh al Islam ñëpp a ko bëgg Bernadette sen la soleil maa ngi koy ziar bu baax a baax voilà mu ngi noonu fi mu ne ful bu bëree bëri la ñuy gis noonu fi nga xamante ne moom mooy ci euh, port bu Kaolack euh. en tout cas démb Tamsir nee na ma plus de quarante et quelques pirogues ñoom ñoo war a ci fi nga xamante ne moom di euh, mais booy booy dawalal gaal gi waaw ah te nga bàyyi bonde bonde wóorul ci dex waa ji mooy bonde ah lii xanaa ay signalisation la sal ay signalisation la xanaa waaw fii day wóorut a jaar mu ngi noonu léegi nag euh, gis ngeen ne ñi nga xamante ne napp si pax waaw ah, waaw góor waaw góor yow daa mel ni ñoom it nga ko de waa jam ñaay nga gàmbi nga nekk wax nga dëgg wax góor waaw góor mu ngi noonu <coughs> la quatre-vingt-dix point un ñu ngi noonu ci wet gi ñoom tamit euh, di def seen liggéey la sécurité jamono ji nag euh, Euh, dafa mel ni gaal yu bëree bëri daan nañuy wàcc si ndax euh, fi nga xamante ne moom moo di euh, port bu Kaolack fees na dell ak ay doomu aadama bu ñu ñëwee nag le président de la chambre de le maire de Djirna donc mu ngi noonu rajo Alfayda askan wi ñu bëree bëri waaw taaru na lool Sall taaru na drapeau ngay folate drapeau ngay folate allo ah drapeau ngay folate alaagi Assane oh waaw jege ko jege ko ay jë ja ja ja ndeysaan presse bi oh jële ko jële ko capitaine allo waaw waaw waaw waaw waaw daa gën a yokk daa gën a yokk ndox mi dafa gën a yokku Alaaji Asan daañu fi may

interview ah before you say interview am photo ba photo ba ngi activé voilà donc euh, alors baal ma ma rek ma alors euh, ñu ñu jël ñi nga xam rek alors kilifa ji ak Jotna Média euh, tey ñu fas yéene dalal euh, gan yi nga xamante ni si dëkk ndox ndoxaati lañ dëkk ma historique bi naka nga ko naka nga ko dundee tey jii nii waaw am ci mbégte ak kontante man

xam ne encore une fois de plus am ci a ak kontaan